am na des candidats euh, Anta Babacar Ngom Abdourahmane Diouf euh, premier ministre Abdou Mbaye Aminata Touré euh, Thierno Thierno Alassane Sall bon ñeneen ñu baal ma rek dama nekk di lim rek ñi nga xam ne ñoom laa ñoom laa gën a miin ci ci ci jeu bi mënul am échappé ci candidature yooyu Aïda Mbodj Malick Gakou Hmm. Eh, affaire dafa serré de dafa serré trop parce que xam nga dafa am de grandes force politiques yoo xam ne ñoo vampiriser le jeu politique maanaam dafa am ay kuréel yu am doole yoo xam ne daanaka ñoo naan électorat bi yëpp ñooñu benn bokk yaakaar ci la bokk Pastef ci la bokk PDS ci la bokk euh, par contre li doon intéressant mooy si tout la famille socialiste historique se retrouvait maanaam bu fekkoon ni ñas Aminata mbeng xalifa Khalifa Sall Barthélémy Diaz Malick Gakou Alioune Sarr ñëpp dañu nekkoon ci benn coalition ça aurait pu constituer pôle bu am doole malheureusement demewul noonu mais le candidat du PUR nag. Hmm? le candidat du PUR. oui. un homme du sérail économique. Ah, dina am vote waa PUR. dina am vote waa PUR. man de sama analyse loolu la am vote waa PUR. dina am mais points yi points yi day cher de élection bi élection bi am 1 pour cent sax lu jafe-jafe lay doon. parce que déjà bokkul ak élection 2019 nga xam ne ay 4 5 candidats moo fi amul fii jàpp naa ni. Euh, minimum nañ am ñaata candidat bon bon bon bon bon bon bon euh, dinañ am fukki candidats. une dizaine voilà. Euh, donc points yi day cher. xam nga Idrissa Seck ni mu defoon en 20 pour cent en 2019 li ko waraloon mooy amuloon ay candidats Sonko tëm ni lay jóge xaw ma plus fort am quinze pour cent en 2019 c' est que y' avait pas des candidats. mais mais 2019 bu Karim du bokkoon Khalifa Sall bokk yeneen candidats yu ñu recalé ay ñoom Malick Gakou yëpp bokk gars yi du am du ñu am score yooyu. mais mënaguloo. Hmm. configuration bi permettre la ba tey. Hmm. nga mën a joxe le profil du vainqueur mais mën nga ma jox le cinq majeur. ci affaire bi. waaw waaw. cinq majeur bu premier. non du ma du du ma classifier. waaw defal au hasard. waaw du ma classifier au hasard. voilà je pense que candidat Benno Bokk Yaakaar ci la bokk. candidat Pastef ci la bokk. par procuration ou ci nga bokk. ok. candidat PDS canal historique ci la bokk. PDS Boun jonn ci la bokk Déthié Fall ci la bokk moment bi may waxee yow nii man loolu laa jàpp. loolu mooy cinq majeur bi. loolu laa jàpp tey à la date d'aujourd'hui loolu laa jàpp. et ko premier tour c'est possible ou pas. gawuma loolu. deuxi deuxième tour man gawuma loolu. wala kuy gagner au premier tour tu vas ak marge bu faible. 52. waaw comprendre nga parce que xam nga lu tax euh, su Sonko bokkoon Ousmane Sonko su bokkoon moom dafay gañe au premier tour sans se fatiguer mais candidat bu mu mën a def candidat bu mu mën a def dafa am ay perte xam lu ma jaaxal. xam hmm. ku ñu fàtte. mooy kan. ci fait beaucoup de travail de terrain. mooy kan. Bougane. Bougane d'accord léegi. Bougane dama ni perte yi perte yi ah laa lay répertorier dama ni la tous les sondages le prouvent tous les sondages le prouvent Ousmane Sonko bu bokkoon mën na gagner au premier tour. élection waay loolu aussi am na contrairement à ce que disent les gens de Pastef. am na ay critères c'est pas dans tous les cas comprendre bu bokkoon Macky Sall bokk du gagné au premier tour. bu bokkoon Macky Sall bokkoon Macky bokkul mais benn bokk yaakaar am un candidat unique boo xam ne nii c'est un candidat qui représente vraiment la majorité affaire du gagné au premier tour. est-ce que tu ma bëgg a wax. Mm-hmm. maintenant boo génnee scénario boobu mooy Ousmane Sonko bokk bokkul ki koy représenté du def le trop plein de ses voix du ko def. day am taux de du ko def du ko def def de sort que. bu fekkee gagné au premier tour day mën a nekk candidat Pastef mën na ko nekk comme candidat benn Bokk Yaakaar mën na ko nekk avec une courte tête est-ce xam nga baax li ma la bëgg wax maanaam ça va se jouer ci ay ci ay marge yu ndaw mais victoire écrasante au premier tour amul ci benn scénario est-ce que dégg nga na amul ci benn scénario. Bougane dañ ko fàtte. Mhm. Bougane il fait du travail de terrain. Mhm. il donne l'impression d'avoir appris de ses erreurs en 2019. Mmh. Il a changé de discours, mmh. il s'est plus humanisé. lan mooy ay chance am. a priori tu sais je vais t'expliquer nga élection étudier sondage yeeg yëpp ay projection la maanaam. dañuy natt yëf yi teg ko ci ay nattuwaay ci jamono mais loo gis day bouger par exemple bu ñu demee ba xam liste. candidat retenu yi ngay xam ñooy bokk déjà am lu bari lu changé. li lu bari lu changé mooy am na ñu bari ñu waroon woteel sàmba sàmba demul ñu dem ci Demba est que tu loolu moo tax man la ba léegi affaire yi c'est pas encore précis est-ce xam nga baax li ma la bëgg ba léegi affaire yi leeragul parce que il faut ñu xam ñañ ñooy bokk bu ñu xamee ñañ ñooy bokk ci nañ xam report de voix yi à part bu ñu àggee foofu ba di defaat ay sondage yu bees la ñuy gën a affaire ci lay gën a leer bu ñu demee noonu aussi campagne électorale dafay jouer parce que campagne électorale da nga gis ay fluctuations yu àgg ba ay 5 10 pour cent. da ngay boo xam ne nit ñi dañ ko bëgg a priori mu def erreur yu grave ci campagne bi nit ñi di ko reetaan rek di ko mokkee ba bàyyi ko comme ni daloon Iba Der benn campagne électorale tu comprends nit aussi mën na ñëw nekk candidat bu baax def une très bon campagne marqué nit ñi tu moo tax man la dañu nekk ci approximation tu comprends mais pour yëf yi leer il faut ñu xam listu yan candidat ñoo bokk déjà bu ñu xamee ñu bokk nañu xam rapport de voix yi moo tax man la tant que dafa am critères yoo xam ni tant tànk jotuñu ko mënuñu wax kuy gañe loolu bokk na ci bennoo bokk yaakaar ndax day day nekk bennoo bokk yaakaar wala tasaaroo bokk yaakaar c'est important loolu day da ciy bokk ñu xam kan mooy représenté Pastef loolu da ciy bokk ñu xam ñaata candidat la ñu retenir ñooñu da ciy bokk ñu xam yan rapport de voix mooy am bu ñu paree ba désigner candidat yi critères yooyu yëpp bu ñu ko téyee mën naa la wax sans risque de me tromper. que diw mooy gagné. et loolu ban moom euh, après après le 10 janvier. après le 10 janvier. bu ci tegee tuuti xam nga lu tax.